bisimila dalee nag jàmm ci chaîne bi ngeen taamul seen bopp yéenekaay yi tey samedi fanweeri fanweeru mars atum li ñu gën a yittewoo mooy président Macky Sall ak coppite yam indi ca conseil supérieur de la magistrature waaye it conseil constitutionnel mi dëggal palug Bassirou Diomaye Faye ne juróomeelu président de la république bu Sénégal tribune boobale xibaar la ñu yeggee ne gannaaw ba conseil constitutionnel waxee loola prestation de serment maanaam ko jàpp ca centre international Abdou Diouf bu jam le regard est gis ne conseil constitutionnel dëggal na palug Bassirou Diomaye Faye dëggal itam ndam li mu am ci premier tour élection présidentielle bi nu weesu journal bi ne juróom-ñaari sage fa cour d'appel jaar la ñu jaar neenu Diomaye am 54,28 qui ci xob yi nu sànni Amadou Ba am 35,79 moo ca l'indépendant ne juróom-ñaari sage yi conseil constitutionnel yi tànki cour d'appel képp la top ci résultat yi amul genn coppite gudu ci indi vox populi ne conseil constitutionnel kay dafa officialiser palug basil Diomaye Faye ne juróomeelu njiitu réew bu Sénégal njiitu réew mu bes mooma basiru Diomaye Faye fay direktur lu mu denk directeur de campagne Mustafa girasi ñaar wala ñetti fan yi nu wessu loolu la Mustafa Guirassy di wax ci Vox Populi ba ca njëkk neena na na ci xew mi wara am ñaari fan weeru avril manam waat gi mu wara waat di prestation des serment wam bañ doon lu xumb bu sañoon sax ca conseil constitutionnel lay amé yam ca la wara am képp basiru na dafa bëgg cérémonie prestation de serment boba doon lo xamni kenn dootu ko fàtte ndax nanu koy doxalee Guirassy ne Diomaye dafa japp ne jubilé nañu ba nopi fimné askan wi dafa am lu muy xaar ca ñom té ca lañu jublu mooma nag giraasi nee na am na it lu mu nar a sàkku ci askan wu sénégal ndax am na taxawaay wum jàpp ne sénégalais bu ne war nga koo mën a am ngir réew mi jëm kanam unis booba jamono ma ngay sàkku ca booba lépp yéenekaay ci ci wetu Basiru a di wax ci Le Réveil chercheur booba di consultant itam ma ngay wax ca gouvernement bi nu dëkmal ne Ousmane Sonko mooy premier ministre bu sénégal loola amul sax xel ñaar Boubacar Seye ne njiital Pastef ku ni xam na ne coppite tuumaal cat ba cat mooma kon pros mooma moo war a nekk it ci xolu yëf yi Boubacar Seye jàpp na ñi naan Ousmane Sonko dafa a bàyyi Bassirou Diomaye Faye mu liggéey bu baax a baax moom ni jaayu njiitu réew mi it ma ngay nettali la dox digganteem ak jarbaatam booba ñu fal ci bopp réew mi nee ni ko askan wi xoole ndax état de grâce danañ ko ko may déet na a jël moom a gu njëkk mooy du 109 au pouvoir maanaam lu bees tàq ñëw na ca nguur ga levey booba jamono naan ñu Bassirou Diomaye Faye dund gu bees lay dund googaleg dund la ñu yéene kaay biy nettali coppite yu bari am ca bokk ca wàllu kaaraangeek yeneen lu jëm ci wàllu gouvernement bi ñuy xaar nag ca l'informateur imam Malick Mbaye bu Thiès ma naan na doon gouvernement bu compétence lal waaye itam probité maanaam na ca ñu jub nekk waaye itam ñu mën seen liggéey yéene bi sax ma ñuy xam xamal ne magistrature yéeni kaay bi ne ay nomination maanaam falak fol yu bari la fa Macky def muy lu Guy Marius di ñaawlu ca booba lépp yéeni kaay tey artu bés bi la jour di yëgal ne yooyele coppite Macky indi ca magistrature ba bi ñetti fan képp desee ngir mu jóge ci bopp réew mi bokk na ca fal magistrat bi di Ablaye Ndiaye premier président bu cour suprême mu wuutu fa Aly Ciré Ba mi retraité ñi bokk ci judiciaire financier it Sall fal na leen Seynabou Ndiaye Diakhaté yéene cabinet moom la Macky def premier avocat général près la cour suprême kay conseil supérieur de la magistrature yëngal na ko démb journal bi ne coppite am na ca ba ni ki ca bopp cour suprême Henriette Diop Tall mënu yóbbu ca autorité de régulation de la commande publique delloo siwaat nañ ko mu doon président chambre procureur de la république ba ne woon ca tribunal grande instance bu Pikine Guédiawaye Amadou Seydi yéene kaay bi ne tey mooy procureur de la république près le pôle judiciaire financier yooyele nomination it enquête ma nga nu ko yeggee ca boobaleb yéene kaay Guy Marius Sagna di ko ñaawlu te cay am xel mu teey te le regard it ma ngay artu président Macky ci fal yi mu nekkee bi ay fan képp desee ngir mu fegal ci bopp réew mi ca l'info ñu fekkati boobaleb yéene kaay njaga si la expert électoral mel ni ku naan lun sabote sabote askan bi moom yaakaar bi nu bëgg bi ñu amoon ci coppite am ci réew mi mujjee nanu koo matal dimanche ci élection bi nu weesu élection ci ndakaaru moom la Abbas Fall coordonnateur Pastef Dakar di càmbar te naan amuñu droit def ne ci département bu Dakar am nañu lu ëpp 288 000 voix booba jamono meerub ndakaaru be candidat am 24 000 voix la ñu am Abbas Fall nekkoon ca booba lépp élection waa Dakar li ñu bëgg a wone mooy ingratitude maanaam nit defal la lu baax nga fay ko savaan dafa war jeex ki ne ci yoonu jeex jeexal kay enquête gis na ne mooy xalifa Ababacar Sall mi jege retraite saa su yeewa rawati nag bi mu génnee ci élection présidentielle bii mu jëlee 1,56 pour cent kaay bi laaj ana ginnaaw xalifa Sall kan moo mën a taxawee taxawaay ba mat ca taxawu ndakaaru mbiram Ndiaga yéene kaay baa ngay laaj ndax du indil barthélemi Dias gàllankoor loolaa ngi tege sotteegul leneen di tege ci seen kanam it mooy defaraat seen parti waajal élection yi nu dëgmal mu di législative investiture Bassirou jomaay fay mi nu fal ci élection présidentielle bi nu weesu ndax Macron da koy teeweem déet enquête woowale laaj la samp fii ak tontu li ñoom ma nga nuy yéggee ndénkaanay Ousmane Yara mi dellu si ci médiation maanaam tànki jàmm ya ñu dox diggante Macky Sall ak Ousmane waaye itam mbirum Omar Sow ma la doon xeexal ca palais ba démb l'observateur sax ca loola la xëy nettalinu xeex ba naan Ousmane Yara daf koo saaga mu dóor ko mu daanu loola waral l'indépendant nañu convoqué woon ko ca brigade bu conk gannaaw ga lanu ko bàyyi le réveil ne Omar Sow kay mbiram xeexam mooma ca palais de la république lu ne wax na ko ca yéenekaay bi ne dix version la Omar Sow joxe ca moomale gannaaw ba nu ko dégloo bàyyi nanu ko jàpp tëwa bàyyi papa Mada bu Pastef yéenekaay bi di libération ne lu mu am tey moo ko ko may dellu siwaat na ak doole ci chancellerie bi yéenekaay bi ne ko ci frigo bi maanaam teg ko ni tegee yéenekaay bi ba mu tegee loola ma ngay wax ci China Henan International mi ñu joxoon ay projet yu bare bare ci Sénégal yéenekaay bi ne génnee nañu ko ci lépp luy marché bu baat di banque africaine de développement ngir wàllu fraude falaa garant de li lañu ko jàpp maanaam loxo ci poos China Henan International mujjee def ab accord maanaam waxtaan ba juboo ak bureau intégrité bi xeex wàllu corruption di ger lijjanti lépp luy ger ak luubal ci réew mi maanaam reddition des comptes Aly Ngouille Ndiaye ca levé ma nga naan lu mënta ñàkk la te itam lu kenn dut négocier la mel ni ku naan loola lay xaar ci gu bees gi Bassirou Diomaye Faye di jiite professeur Abdoulaye Bathily booba jamono it ma ngay la muy xaar ci nationale li ñu tekk ci réew mi benn programme parti politique mën a gu ko fee def Sénégal nag professeur Abdoulaye Bathily ne mënta lijjanti boppam te ba réew yi mu dendal mu ne sunu njiitu réew ñeen fukki at ak ñeent la am te ci réew mi am nañu jafe-jafe boo xam ne ñoom ñaara maase muy coowal Casamance gi loola waral professeur bàcc li ne coow loola faaw ñu jëm koo fay bañ koo fayee nag ni ko way politique yi fi jiitu jéem a defee waaye ñu jël ko def ko mbir mu sérieux fullaal ko fay daal ko def ko itam farata Ousmane Sonko moom ndax bu nu ko fayee borom dana baax ca moom l'observateur loola la xëyee opposé wa président Macky Sall ndax duñ ko ko delloo yéene cabinet bu opposition bu bees bi defee na Ousmane Sonko doon defeek président Macky Sall leer na ne ci crise institutionnelle lañu jëm PS moom ca lañu jëm mooy mag ña wàcc ndaw ña yéeg l'observateur mi gis loola ma nga nuy xamal ne ndaw yu baree bari ña ngay puus mag ña ngir ñu wàcc ngi yéene bi noppi ca loola yóbbuñu Kolda yeggee ñu tiis wu fa am muy ñaari gone kenn ki am benn at foo nga cay wax nañu njabootu ko faatu ba tey ma ngay wéy di joxoñ baaraam tuuma ca police Walf Quotidien dañu yëgal booba jamono ne Clédor Sène mi tuumaal Bara Tall enrichissement fas yéene yóbbu ca yoon Vox Populi ne du moom képp Bara dana topp Clédor Sène topp itam Kewulo TV ak ñeneen avocat am ne ñooñu ñëpp talaata daanu leen jox citation directe yóbbu leen ca kanam yoon ñu leeral tuuma yooye ñu teg ca kaw Bara Tall moom da ko fas yéene ne di ragg saa yu ko jaree Eumeu Sène moom risque bi mu jël ci bërey Sa Thiès juróomi fanweeru mais jar na comme jaru ko fii ak ñuy am tontu li Walf Quotidien ne leer na ni Eumeu Sène moom risque bu mag a mag ci la ne ndax Sa Thiès mooma yéenekaay bi ni moo ëpp fit magam Balla Gaye 2 moo ko it ëppi qualité bu nu ko tegee rek ci bërey ñun foofa la ñuy teg sunu loxo tey ñaanal leen kendal ak jàmm dig daje altine incha allah